ci wàllub njàng meek njàngale mi lu ñu nemmeeku nag jamono euh, jile ci li nga xamante ni daal moo di ndongo yi seen tànneef li leen di gënal moo di nag jublu ci série littéraire yi maanaam wàllum njàngum leçon ak ay wàllub calcul di série scientifique yi lu ko waral nag moo di daal ñoom ay euh, dañuy ragal tamit di am ay not yi bon ñeneen ñi tamit gise ni daal ni série littéraire yi moo gën a yomb ba tax na nag ñoom seen yaakaar tamit ci la wékku ngir nag matal seen jàng ak seen reportage suñu naataango maam Njawar Diallo ci ndimbalu Seydou Sow. man série S laay def. ak prime laay def. série scientifique wala littéraire tànneef bi doon ci compétence yi wala prédisposition yi. fii ci lycée de la Delafosse ñu nemmeeku fa ne lii di série L ak L2 ñoo fa ëpp série s yi ak s du sax affaire difficile c'est vrai que pour ñoom du yaakaar ni série scientifique moo gën metti ah, mais soo leen xoolee seen argument mooy. fu nu ëppee note donc élève moom loolu lay xool maanaam daal fu nga xam ni foofu la yaakaar ni foofu la note bi gën a yombee foofu lay dawal faral di jëm ah te soo ko xoolee en réalité comme la ko waxee léegi problème bi c'est beaucoup plus profond que effectivement que affaire que problème mu formation la surtout. ab nag ngir nga taamu ko faaw nga ci ab maîtrise comprendre ko. bu loolu weesoo nga jox ko gëddaam nag ngir mën cee am ay résultats. depuis bi ma nekkee xale ba léegi loolu moo nekkoon ci samay bët quoi. dama doon xalaat doon comme maître Abdoulaye Wade parce que man moom moo nekkoon sama idole bon nee nañu def nañu série yu def na série yu bëri mais série S bi moom a gën a marqué parce que bi ma nekkee xale dama doon wax li nit ñi mun man je pense que ni man mun naa ko parce que un bon scientifique comme ni ko gars yi waxee scientifique yi dañu war a aay si matière kii comme SVT mat ak PC. nga aay ci matière scientifique wala littéraire tànn ba nga gis sa bopp doon li ñi le sori lii di mat ak i calcul la ñu tànn doon tari leçon. sama choix la mhm. si matière littéraire yi laa gën a taxaw moo tax ma jël ko waaw. dañu ah mat bi neexut a ñeme de. non non neexut a mais bon am na élèves yi ña nga xam ne dañ koy daw parce que ñemewuñu mat bi am na ña nga xam ne aussi série littéraire yi moo leen di arrangé moo tax ñu koy def. elle man dama gis ne moo gën a yomb ci man moo tax ma jël ko waaw parce que si laay man ci laa gën a mën a bu ñu nee elle série L2 leçon yi dëgg la bëri na mais man mën naa gën a mën a jàng leçon que nekk di calculer. lu ni mel nag doon ay choix personnel lii di CDS élèves yu bari ragal ko. ndax gëstu bi wane na ne ñii di littéraire yi ñoo ëpp ci élève yi